كبر li ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani يفقه قولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen bokk jullit yi yéen bokk talibi sen seen mbokkum Mahmoudan Mbacké moom Serigne Bassirou Model del siwaat ak yeen ci seen jotaay bi ñuy wax majlis sura te mi am dimanche bu jot bu ñetti waxtu ak genn walu jote ci seen rajo bi di rajo qasida online muy émission boo xamantene daf koy bokk ak mboolem julit ñi nekk ci àdduna bi yépp mboolem njaboot gi nekk ci àdduna bi yépp ñu di ko def dimanche bu jot bu ñetti waxtu ak genn walu jotee di gërëm mboolem auditeur yi nga xamantene ñi ngi bàyyi xel jotaay bi tey andalok ñun ci seen jotaay bi di almati sura muy njabot gi nga xamantene ne ñoo nekk ci Portugal gi nekk France gi nekk Angleterre gi nekk Suède gi nekk Danemark gi nekk Amérique gi nekk Afrique du Sud gi nekk Sénégal gi nekk Espagne gi nekk Italie waaye mboolem njaboot gi nga xamante ne ñu ngi ci àdduna bi nekk siin suñ Maxtaar Kulibali ñoom ak ñoom ñëpp bàyyiwuñ xel kenn bàyyiwuñ kenn kenn ku ci nekk ñu ngi leen di bàyyi xel niñ koy waxee rek seen jataay bi daal ma ci suura du man di tudd tur yëpp ndax li koy bàyyi xel ak li diglu di ci weccantonte ay xalaat dimanche bu jot dafa bari ba nga xamante ne soo limee kenn bàyyi kenn rek dafay metti waaye ñu ngi sant mbooleem auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel muy ñuy woote bu ñuy waxtaan ak ñi nga xamante ne bu ñu waxtaanee ba noppi danañ woote ci suñ numéro téléphone ak ñiy woote di laaj ku xam ngir di la sant ci waxtaan woowu ñu di leen xamal ne lu ci jub lu ci ñun waaye ci sëriñ bi la lu ci dëng nag ci ñun la ndax suñu gàttu xam-xam ak suñu gàttu xel mu melni ni seen bi dimanche lay am direct ci rajo lain. lay yeen bokk yi nga xamantene da ngeen ci wote yépp it fi ngeen daan jaar rek su ngeen fa jaaree da ngeen ñu mën jot muy ñi nga xamantene am nañ skype te mën a jaar ci skype bi suñ ci wootee danañ ñu jot waaye ñi amut skype it tamit te am telegram telegram yomb na léegi téléphone yi am android téléphone yi nga xamantene ne it ay appel app store la muy lu melni iphone ak i mbokam yooyu yëpp bu fekkente ne tey ah, enregistré nga numéro bii rek te dem télécharge telegram da nga ci mën a woote muy numéro trois cent vingt neuf soixante dix soixante six neuf cent quarante trois cent vingt neuf soixante dix soixante su ko defee rek da nga mën a bokk ci seen jataay bi nga xamante ne mooy almasi suura te muy am dimanche bu jot bu ñetti waxtu ak genn wàll jote ci seen rajo bi nga xamante ne moom mooy rajo xasida online tey nag bokk yi mu mel ni ñu ngi bëgg a waxtaane loo xamante ne niñ koy waxee rek mooy jaar nañ ci ay yoon yoon waaye nag nit ku nekk rek su accès ci li nga xamante ne moom mooy bisam dana jaadu ñu fàttali nit ñi ngir ay jikkoom ba kenn ko ci nekk jikko yooyu loo ci mën a roye ci lu baax rek nga jël ko ci ndax dana leen dimbale surtout ci jamono ji ñu nekk nga xamante ne jamono ju yàqu la joo xamante ne daanaka kenn mënu koo jëfandikoo fi mu toll jamono ji doy na waar doy waar goo xamante ne ah wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk war nañoo delloo siwaat mag ñi nga xamante ne ay boroomi jikko yu baax lañ su ko defee nit ñi mën cee roy mbokk yi yéen ñëpp xam ngeen ne incha allah alxames bii di ñëw ci la màggalug borom daarul muati muy nisfu saabaan di fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu bi nga xamante ne moom la ñuy fàttaliku jëmm ju tedd jooju di Cheikh Ibrahima Fati muy taalubeb Serigne Touba bu Serigne Touba nangu woon ak taalubeem muy rakki Serigne Touba ju Serigne Touba nangu woon rakkoo ko muy mbokkum Serigne Touba mu Serigne Touba nangu woon mbokkoo ko waaye muy ku nangu woon ndigal ku Serigne Touba waxoon ne nangul na ma samay ndigal yépp kon ku mel noonu bo bisam jotee waris na cee fàttaliku tuuti rek su fekkee du bari ci ay jikkoom ngir nit ñi mën caa roy lu baree bari loo xamante ne danañ ko mën a roy te bu boobaa it danañ ko mën a jël def ko muy ngànnaay boo xamante ne ngànnaay boobee danañ ko mën a jariñoo mu mel ni bokk yi kon duñu def niñ ko daan baaxoo defee ndax conférence yu bari daanaka eh, dangay ngay bind laaj nit ki fa mu juddoog dat ya mu juddoog eh, ay waay juram ak yooyu yëpp dafay mel ni ah, ba nga xamante ne borom daaru jóge na fi ba léegi toujours ñi ngi koy waxtaane muy lu am solo ndax nit ki waris na koo xam waaye nag ñun ñu gis ne ci sunu njàngit li ëpp solo nag fi ñu toll nii mooy nit ñi ñu wax leen luñ war a mën a roy ci jëmm yooyu nga xamante ne jëmm yu ted yu sell lañ woon su ko defee nit ku nekk lan la mën a roy ci moom mu mel ni Cheikh Ibrahima bokk yi di maam Thierno Birahim tey li nga xamante ne jullit ñëpp mënees ko roy ci moom xam naa point biñ ci njëkk a tàmbalee rek e, dana jaadu ñu tàmbalee ko ndax fii nu jamono moo ko laaj kon bu jamono laajee am mag mu baax moo xamante ne def defoon na loo xamante ne dafa dëppoo li jamono ji laaj waris na ko mën a teg ci taabal te waxtaane ko bokk yi muy maam Cerno Birahim li jamono ji laaj te mën koo jël ci ay jikoom jàngal ko nit ñi mooy solidarité ci jamono yi ñu nekk solidarité ci jamono yi ñu nekk mooy dimbalante ci sunu biir te yàlla rek tax ndax gis nañ ne ci jamono ju jafe lañu nekk jamono ju jafe mooy am na balaa bu wàcc boo xamante ne sunu borom moo ko wàcce naam bu fekkente ne ci ay doom aadama la jaar ba tas ci adduna bi ci coobareel suñu borom ci la ko neexe mu tas ko ngir won leen boppam mu mel ni kon laal na képp ku man di doon kuy dox ci kaw adduna muy dëkku européen yi di dëkku asiatique yi di dëkku Amérique di dëkk yi nga xamante ne mooy dëkki Afrique yi dëkk yépp muy Australie yi dafa mel ni ni ñeenti continent yépp feebar bi di feebaru coronavirus daj na fa loolu nag bu dajee bokk yi mel na ni dafa am benn impact bu bi am dafay am ay yàq-yàq yoo xamante ne dana ko jur ndax yàq-yàq yi jur dana bokk ci am jëmmi doom aadama yoo xamante ne seeni liggéey dana yàqu am ci ñoo xamante ne defuñu woon dara waaye ña doon def dara di leen dimbale danañ latti ba duñ leen mën a dimbale am ci ñeneen ñoo xamante ne dañ daan jog rek topp bitti bi di góorgóorlu di góorgóorlu ba bëccëg ñu am ab yóbbal buñ mën a yóbbu seenu kër seeni njaboot lekk ca waaye am na ñoo xamante ne sax dañ daan xëy ah, yor seeni loxo dem ci forus yi dem ci jàkka yi muy lu mel ni Afrique gi nga xamante ne néew na doole handicapé yi ñi nga xamante ne seeni cër dafa manqué ah dem ci ay béréb toog fa ngir romb leen mën a yëkkati dara teg ko ci seeni loxo te ñooñu ñëpp ñi ngi ñu raafale dugal leen ci biir kër yi tëj leen kon mu mel ni jafe-jafe am na bokk ndax ki daan liggéey di am dara lum jox ay njabootam mën a desal dara lum saraxe mën a desal dara lum dimbalee mbokkam dafay mel ni kooku handicapé na waaye handicapé bi nga xamante ne dafa yaakaaroon boppam demit moom itam nekk gën naa nekk handicap kon mu mel ni maam Thierno Birahim jamono jii ñu toog ah waris naa indi maam Cerno Birahim fàttali ko yi ndax réew mi nu nekk bopp yi dafa lu yéeme lu fi nekk mooy lu yéeme li fi nekk mooy léeg-léeg da gis ab at jot ñu indi benn kalaas boo xamante ne dañuy wane ne ñii day wax dëgg yàlla sunu boroom xéewal na leen ba seenum xel dal na maanaam am na luñ mën a toppatoo seen bopp ak luñ mën a toppatoo seen njaboot ba ñu ci génne sax ay nit ñoo xamante ne léegi ci kalaas bi dañ koy génne par ay catégorie di wax ne nit ki day am na ay milliards wala nit ki am na milliards wala nit am na ay million wala nit ki am na xaalis kon mu mel ni tey ñooñu noonu waris na ko mën a jël jàngal leen maam Thierno Birahim nii nga xamante ne alxemes ak jàmm incha allah lañu koy màggalal fii ci daarul muxti naam su fekkente ne màggal googu sëriñ abbas mi fi nekkal xalifa cheikh ibrahima joxe na ndigal ci ne jàngoro ji am balaa bii am tax na mu joxe ndigal ci nit ñi ne kenn ku ci nekk rek fa nga nekk mën nga ko fa màggalal ngir bañ ndaje yi am ngir bañ mbooloo yi ngir bañ a yokk li nga xamante ne moom mooy jàngoro ji tax na Serigne Abbas joxe ndigal ci ne mbokk mu nekk rek fa nga nekk mën nga fa màggal jàng fa say xasiida jàng fa sa alquran def fa say salaatu ala nabi berndeel fa sa njaboot waaye lépp nag nga jël ko fab yool bi yéene ko maam Cerno Ibrahima sunu borom yóbbu ko ci téere yi jëfam yu baax yi nga xamante ne dana ko ko dencal bu ëllëgee mu fay ko kon mu mel ni ndigal loolu am na wante nag mbokk yi solidarité boobu ñuy jàngee ci maam Cerno Birahim am na ay jamono yoo xamante ne lu mel nii amoon na muy crise boo xamante ne crise mondiale la woon nit ñi amuñu dara lu ñu mën a lekk adduna bi nit ñi di dee ak xiif boo demee ci dëkk àll yi waaye jamono yooyu dey ku ñuy wax maam Cerno Birahim di doomi sëriñ Mor Anta Sali di rakk ci seexul xaddiim di doomi soxna Faati Isa Jóob moom sëriñ kokki njaga isa doo seen doom jooju ñu doon wax maam Cerno Birahim di taalubéb Serigne Touba boobu Serigne Touba nangu woon ak taalubéem defoon na ay jëf yoo xamante ne kenn ku ci nekk ci ñun war nga koo bàyyi xel mbokk yi muy bi jamono demee ba am lu mel noonu jamono soxla ko fii la maam Thierno Birahim woote booba ay tubaab ñoo fi nekk ñoo yoroon réew mi ñoo yilifoon réew mi tubaab yi biñ ñëwee ne yëf yi kat jaaxal na leen ndax wër nañ àdduna bépp waaye amuñu fenn fuñ mën a jële lenn loo xamante ne danañ ci mën a dundal askan wi ba askan wi seen xiif bi nu nekk wàññeeku gouverneur bi nekkoon ñu wax ko ne ko am na ku ñuy wax mam Cerno Birahim di rakki Sëriñ Tuuba jamono yii nuy wax ak yow mi ngi ci région bii di région Louga nekk fii ci Bawal ci dëkk bu ñuy wax Daarul Muhti am na ak farlu ci loo xamante ngi jégalu ci dog-dog boobu du ci suñ toobare kon gouverneur bi ci boppam ñëw ci maam Thierno Birahima xamal ko ne ko am na dund nu bëgg boo xamante ne buñ ko amee dis na ci mën a dimbule xeet bañ mucc ci xiif bañ gi nekk maam Thierno xamal ko ne am na fi te it dis na ko ñu toppatoo ko sàq yi fi nekk yépp ñu bojj ko alal ji nekk yépp ñu génne ko teg ko ci bitti gouverneur ñëw bi mu dikkee ne ko lii day doy na sëkk mënis na ci dundal réew mi bañ jóge ci xiif bi ñu nekk bind ay téeréem bind aw këyitam xayma ci mboolem li nga xamante ne maam Cerno Birahim joxe na ko lépp daal ne ko lii kat mooy li nga xamante ne mooy liñ la ameel ci bor yoo xam ne jël nañ ko ci yow maam Thierno laaj ndaw si ne ko këyit laaj ndaw li ne ko këyit wii lu muy jariñ mu ne ko li nga leen jox lépp lañ la bindal lim bi ni mu toll ci alal ngir bu ëllëgee ñu fay la ko maam Thierno ne ko kañ lañ may fay tubaab bi ne ko xanaa jant buñ ko amee rek nag ci lañ la koy mën a delloo maam Thierno Birahim ne leen ginnaaw su ngeen amee rek ngeen may mën a fay lebal naa ko yàlla mi nga xamante ne du manqué dara te bis bu set ak fayam dara du ci manqué lebal naa ko moom mi mën a fay moom mu fay ñu gis ne bokk yi sest boobu tey su fekkonte ne ci réewi tubaab yi kenn ko ci defoon wax naa ko ci ay waxtaan yu bari dama ne leen daarul muxti ak li ci aju duutu ñuy jënd ab dund ci seen adduna bis bu nekk état dafa am lu leen di warlul yoo xamante ne weer wu nekk dana leen ko jox moom ñoom njabootuk maam Thierno Birahim ñu dundee ko waaye dutuñu jënd ab dund waaye nag suñu état africain yi moom xam nga ay jëf yu baax amuñu ci soxal xamuñu seen mag ñi fi nekkoon lan lañ leen di doon dunde waaye li leen tubaab bi sax loolu rek lañ xam te mooy seen intérêt yi bopp rek yoo xamante ne fàttaliku jëf yu baax yi seen mag ñi doon def mu mel ni kon tey ponk boobu bokk yi kenn ku ci nekk ci ñun war na cee bàyyi xel njabootam muy jamono ji ñu toll kon jamonoy kenn ku ci nekk li nga am nga génne ko te partagé ko su ko defee adduna bi ittewoo ko ndax loolu bokk yi dëkkub maam Thierno Birahim bi mu ko defee woon nga xam ne fi la jëlaloon alalam séddale ko njaboot gépp dëkk bi tey mi ngi ni état bi def na ab loi ci Sénégal bo xamantene loi bi laal na len dëkk bi daara la Serigne Touba mo joxone maam tierno ibrahim wax ko ne ko nang ko sajj di fi yar ay talibé ñuy muritu di jàng alquran di jang qasida def ko ay tol di fi liggéey di yot Serigne Touba ma ci su liggéey lar dara lo xamantene loi bi lek la borom daaru lu fi mas a liggéey day xaar ndaw yi ñu ñëw buñ dikkee ñu jël ko yóbbul ko sëñ Tuubaa njaareem waa dëkk bi dem wuti laneen luñ dunde mu mel ni tey loi bi état bi teg mu laal Sénégal gépp laal na leen fi ñu toll ñu ngi ci état d'urgence ñu ngi ci couvre-feu boo xam ni fukki fan amagoon na ko fukki fan yoo xamante ne ñi ngi tej daara yi ci seeni biir kër nangu wuñ ñu yalwaani ñi ngi tej nit ñi ñàkk ñi ci seeni kër nangu wuñ ñu yalwaani ñi ngi tej ñi daan liggéey tey sarax ñi ñàkk ñi ngi leen tëj ci seeni kër nangu wuñ ñu liggéey te dëkk bi diiru fukki fan yi état bi def couvre feu def état d'urgence ba fii may wax ak yéen man mahmoudan mbàkke moom sëriñ basiru antañang ab dërëm wala ab ceeb wala ab dund jógeegul ci état bi agsi ci dëkk bii ma leen di wax di Daaru Muxti te ñi ngi ci fukki fan fi toll nii bokk yi imaginer fukki fan yuñ tëj ay nit nit ñi mënuñoo liggéeyi nit ñi mënuñoo yalwaani nit ñi mënuñoo saraxe ñu ñàkk ñi mënuñoo dem ca marché ngir am fa dara fukki fan ñu tëj leen ci kër amuñu luñ dunde bokk yi kon buñ demee ba am ci ñu tàmbalee faatu wala ñu am ci tàmbalee xiif dafay mel ni responsabilité état mi ndax ay nit bala nga leen di tëj war nga leen a wutal luñ jàpp naam su fekkee feebara fi nekk boo xamante ne ñépp a bok bokk bala nga leen di tëj war ngaa am farlu wutal leen dara luñ mën a jàpp ndax soo leen tëjee bañ tàmbalee de wala ñu tàmbalee xiif jant bo len joxe dara la nga len di jox du len amal njariñ ndax fekk nañ ñu lattikaaf ba pare te li may wax dekk yu bari ci senegal man naa am lu mel ni mo len dal ndax ku furfur bi bam tambule ba legi de commune bi ma nga nek nga xamne man mom la xam di daarul mooti dégg guma fi dara lo xamantene ab état andi nako fi li fi am lepp nit ñi ñoy def ay solidarité ci seen bop di dimbalante ci seen bop di laaj ay ndimmal di ko jënd ay ceeb di ko séddale nit ñi waaye état bi tëjoon nit ñi moom ba fi may wax ak yow amu fi kenn koo xamante ne jàppalee guñ na wala ñu defal la dara te fi ñu toll agsi nañ ci fukki fan yoo xamante ne ñi ngi ñu tëj ci biir kër yi kenn mun a génn kenn mënut a def dara kon mu mel ni bokk yi su fekkente ne état deful li ko war nu ñu ñi war na noo def li nu war mooy continuer ci solidarité bi maam Thierno Birahim defoon ba génne li nu am lu muy tuuti tuuti génne ko te bokk ko ak jullit ñi nekk ci biir réew mi waaye ak ñi nekk ci biir dëkk bi yépp kon mu mel ni bokk yi tey su fekkonte ne état baaxoon na wala mu amoon ay responsabilité wala mu xamoon suñ mag ñiñ amoon bu njëkk su fekkonte ne tey état xamoon na ko damay yaakaar ne dana góor dana gën a góorgóorlu bu baax a baax ba ñooñu tey nëga ni waroon naa fekk ñoom la ñuy jàngale ci suñ télévision yi tey nëga ni waroon naa fekk fuñ taale télévision bi gis ci maam Thierno Birahim di wax lolu nga xamante ne moom la daan def ci solidarité ci ndimbal waaye loolu nga xamante ne moom la daan def ci bi fi Serigne Touba jógee xool bokk yi maam Thierno Ibrahim bi fi Serigne Touba di jógee di dem ci géej gi mu am ay fanweeri at di xale bu ndaw buy door a dugg àdduna xoola responsabilité bi sëñ bi tegoon ci kawam nga xam ne responsabilité boobu ci jamono yooyu. responsabilité boobu moo ëpp doole état ndax sëriñ bi bi muy dem ci géej gi daf fee bàyyil maam Thierno Birahim ay doomam bàyyil ko fi ay soxnaam bàyyil ko fi ay taalubeem bàyyil ko fi ay rakkam bàyyil ko fi ay magam bàyyil ko fi ay kollëreem ak i soppeem mu bàyyee xale bu am fanweeri at sëriñ bi dem tukki juróom-ñetti at yoo xam ne yóbbantewut benn dërëm dimbalee ko maam Thierno amul benn état buy jël benn dërëm dimbalee ko maam Thierno Birahim amul benn millionnaire wala milliardaire buy jël benn dërëm dimbalee ko maam Thierno Birahim waxuma la dimbale sax waaye dañ ko doon saboote ca lab doon def muy tubaab yi fi nekk ak ceddo yi fi nekk da daan bay ba mbay mi dem ba tollu ci rafet ñuy xaar meññeent ñu jaar ci biir tool yi yàq yépp daf daan bay ba meññeent am mu jël ko denc ci sàq fàggu ab dundam yépp ñu doxe ko ginnaaw taal ko ba mu jeex tàkk daf daan ràbbu ay këram defar ay këram ba mel nam ko bëgge mu dëkk ci ak ay njabootam ñu doxe ko ginnaaw taal lépp daf daan defar ay toolam ba ay toolam jekk ñu doxe ko ginnaaw taal ko daf daan dem ci ay dëkk ngir bëgg dëkk ci biir dëkk ba ngir mën a jaxasoog ñoom ba mën a yor njaboot gi ñu génne ko dëkk ba duñ nangu mu dëkk ci biir dëkk bi ba dégg ngeen Serigne Saliou daana ko nettali ay yoon ne am na guddi goo xamante ne ay bokkam fii ci daaru manaan génne nañ ko biir dëkk bi ne ko mënoo fee fanaan keroog ay sàq la dem sàq mooy liñ daan ràbb di ci denc dugub jamono yooyu fekk na dugub yi jeex sàq ya ca ginnaaw fekk mu sedd guyu ba nit mënta fanaan ci biti sàq ya la dem ñu baleel ko ko mu lalal njabootu sëñ tuubaa gi ñu fanaan ca biir moom mu tal ci biti fanaan nga xam kon amul kenn ku ko mas a dimbale waxuma la dimbale waaye buñ ko bàyyi woon sax mu dund ci sagos boppam bu boobaa dund gi dana yomb waaye bàyyi wuñ ko sax mu dund ci sagos boppam fu dëkk ñu saboote ko lu nekk ñu yàqate ko ba nga xamante ne coono yi mu doon jànkoonteel su fekkonte ne nit ku gaawoon a découragé la wala nit koo xamante ne amul woon pas-pas wala bëggul woon ab sëriñam wala ak ngëmam dëgërul woon mënoon naa yokkat dem defi la neen waaye nu Cerno Birahim pas-pasam maam Thierno Birahim dëgëram maam Thierno Birahim kàttanam maam Thierno Birahim amu fitam maam Thierno Birahim ngorom diineem akuk tabam ak sarixaam dara ci adduna mënu koo yàq xanaa ñu jële fi bakkanam waaye fekk bakkan baa ngi fi jikko yooyu ma lay wax kenn mënu koo génne ci moom waaye bokk yi ñu xool loolu li muy metti metti jaarin woowu nga xam ne mënoo dëkk ak nit ñi foo dëkk ñu lakkoo foo dëkk ñu saboté la ay àll lañ koy may àll yi muy gor bu goree ba dëkk ba defar ba mu baax léeg-léeg ña fa dëkk ragal tubaab yi tax ñu ne ko fii xat na mënoo fee dëkk ak sa mbooloo mu bàyyi fa gor ba dem faneen dem gori faneen nga xam ne ak dundam yëpp daf ko gor nekk ko ci coono waaye ñu xool coono yooyu li muy bari bari mission bi ko sëñ Touba dénkoon benn mësu cee sooxe benn mësu njaboot gaa ngi fi li ñu war a lekk lañuy lekk muy di lekk yàpp bu baax tey lekk ba suur du manqué ci jamono yoyu mam ciarnu nek ci ay xat-xat bobu doomi seigne Touba yim andal soxnay seigne Touba yim andal rakki seigne Touba yim andal magi seigne Touba yim andal bokki seigne Touba yim andal kenn mësu ci xif kenn mësu ci rafle lek gu bax lañuy lek mam ciarnu di wuti ñu di lek kenn mësu ci rafle mam ciarnu biraayim di wuti ñuy sol kenn mësu cee ñàkk a bañ a jàng ay boroom yi xam-xam ay boroom yi xam doy na ci rek nga ne Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké ku ko raw ci xam-xam ci Sénégal newu fi Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacké ku ko raw ci xam-xam ci Sénégal nekku fi Serigne Mamar ku ko raw ci xam-xam nekku fi Serigne Maxtaar Bintaloo ku ko raw ci xam-xam nekku fi Serigne ku ko raw ci xam-xam nekku fi sëriñ ma samba mbàkke ku ko raw ci xam-xam nekku fi muy ay kàngam yoo xamante ne li yëf yi metti metti metti borom daaru ñii mësuñoo tumuranke mësuñoo manki dara ay taalubeem bis bu nekk mi ngi leen di wutal ay tool yuñ mën a fuñ mën a jaamoo te bokk yi lii di tar-tar ak li muy metti metti ak roñu bi tuxu gu metti gi foo dëkk tey ñu ne la jóge fa dàq la nga dem faneen teewul mësta wàcc mukk sariyexa ak xaqiixa kenn du dugg ci jàkkaam di tiim waxtu julli di jot te nit ñi jaamuñ yàlla bokk yi mel ni kooku tey te lu mu masa am boo duggee ci réew mi tey kilifa diine goo mën di dugg muy bokki sëñ Tuuba yi nga xamante ne ñoom la bokkal diine bokkam yim bokkal deret bokkal yim bokkal askan bokkal yim bokkal réew bi ci jamono yooyu lim doon metti metti metti nga xam ne nanguwuñ ko bàyyi mu toog fenn nanguwuñ ko bàyyi mu nopp lu fenn tubaab yi di ko xatal di ko menacer guddi ak bëccëg mbokk yii ma lay wax mbokk mu ci nekk ci jamono yooyu nee na la jóge naa fa ma nekk ñëw fekk si maam Thierno Birahim ci xat-xat yooyu mu dimbale ma mu jox ma ab dundu boo xam ne mën naa cee dund am at bokk yimu mel ni jàmbaar googu tey su fekkonte ne ñoom la état yi jëloon tegoon leen ci télévision yi tey jàngoro yii ñuy jàkkaar lool dana yomb lool ci ñun dana yomb lool ci ñun bokk yi ngir ñu régler ko ngir ñu saafara ko ngir ñu faj ko dana nek lu yomb ndekete jambar ngi ni jo xamantene ne di doon wax mam tierno Birahim tay li mu nekke woon su fekkonte ne tey président de la république xolon na jël exemple ci jëm joju di maam tierno Birahim kon nit ni bala ñu di tej fukki fan ci seeni kër bañuy ñuy tàmbalee ci ab danañ am lu leen mëna dimbulé ndax réew mi xaalisam ci bokk yi réew mo xamné ne mën nga fi tuddu fukki nit yo xamné ay milliardaire lañ milliard ku ne xam na bokk yi milliard du caaxaan tay état ngi fi yor ay fonds yu dul jeex yu président yor président assemblée nationale eh, sécurité sociale yu bare bare yo xamantene ne ngi ay fonds yo xam fonds yoyu kep buñ ne ko won tass ba nëga ni nit ñi man nañu tok ci seeni kër wante ndekete bokku yi ñak jangale jëm ju melni cheikh ibrahima fatidi man ceerno birahim ñak guñ ko ñak jangal rew mi tax na réew mi xamuñu seen bopp ndax yaakaar nga ne da ngay denc rek ba heure bo faatoo rek ñu miraas ko ñeneen seddaloo ko waaye ndekete maam Thierno Birahim mii doon def loolu bañ tudde woon ko ab milliardaire ci jamono yooyu ndax kilifa diine gu nekk fekk nga ko Mbàkke Kajoor wala nga fekk ko Daarul Manaan wala nga fekk ko daarul muati wala nga fekk ko daaru koso wala nga fekk ko ci dëkk yooyu mu nekkoon kilifa gu nekk fekk nga ko fa mu dimbali la jox la dugub joo dunde wala mu jox la loo dunde Muritani naar yi dañ ko daan rang fii serif yi fii lañ ñëw daan ko rang kuy dem mu jox la looy dunde at sëriñ tuuba lépp lu mas di dunde wala doomam mas ko di dunde wala soxnaam wala ay njabootam maam Cerno Birahim moo ko daan liggéey ci loxom bu tedd ba jox ko ay ndaw ñu yónnee ko bimu nekkee njaareem ak bimu demoy ci géej gi waaye bokk yi jooju ñu tudde woon milliardaire boobu keroog bi mu demee ba 1934 ci jamono yim fi jógee bi mu demee ba génn àdduna bañ denc ko fi ci bayti sëriñ Mouhamadou Awa Balla bi ab xalifaam bu njëkk mook ay doomam yu mag di cheikh Abdul Xudus sëriñ Mouhamadul Habib sëriñ Abdurahman sëriñ cheikh Fati ak doomam yu mag yooyu nga xamante ne ñoo fi nekkoon ci jamono yooyu biñ demee ba denc ko ba noppi te di ko yéwénal li gën a yéeme mooy milliardaire boobu nga xam ne moo daan dimbale ñëpp bi ñu dikkee te war koo muy miraas séddale nga xamante ne am na ko milliardaire boobu amul dërëm buñ seddale ci alalam bàyyiw fi benn dërëm moo xam ci banque la moo xam ci ay coffre la moo xam mu dénk ko nit bàyyiwu fi benn benn benn benn dërëm ba gën a néew bàyyiwu ko fi lépp jëloon na ko dundale ko nit ñi te yàlla tax muy maam Cerno Birahim lépp dundale na ko nit ñi te yàlla tax lim fi bàyyi daal mooy ay yére barkeelu yoo xam ne sëñ Tuubaa ko ko joxoon mu daan ko barkeeloo lu dul loolu amul benn njabootam benn doomam bu donn ci moom dara dara ci alal lu dul yére barkeelu mu mel ni kooku tey bokk yi su fekkonte ne état jàngale woon na ko yaakaar na réew mi duñ tumuranke ak xiif te ña réew ay milliardaire a ngi fi ay millionnaire a ngi fi ay boroomi xaalis ngi fi état ko ci gis organisation bam yor ma nga ak ay fonds politiques yo xamantene ne alal judu jeex la kon mu melni ni yi li nu déssé lenn rek la moy jangalé suñuy mak moy jangalé suñuy référence moy woné nit ñi nga xamantene ne ñun mom lañ wara roy jàngale nit ñooñu bokk yi mooy li nu dese ndax danoo xamut sunu bopp ñàkk a xam sunu bopp nag moo tax lu ñëw nu sonn waaye ndekete bu nu xamoon sunu bopp ci ñun kenn du ci sonn ndax maam Thierno Birahim dafa def méthode bu am solo mooy dafa fexe ba dencul ay milliards ñu di ko donn ci ñoom wante moom ci boppam dafa créer ay milliardaires yoo xam ne bu ëllëgee dañuy amal njariñ askan wi dañuy amal njariñ xeet wi milliardaires yooyu bokk na ci noonu mu doxale woon digganteem ak sëñ digganteem ak jullit ñi digganteem ak réew mi noonu la formé ay nit yoo xam ne bu ëllëgee noonu Serigne Touba doon doxale noonu maam Thierno Birahim doon doxale nit ñi sëñ maam Thierno Birahim doon formé ci doxalin woowu la ñuy dox xoolal bokk yi ku formé Cheikh Mouhamadul Moustapha mu njëkk a nekk xalifab Serigne Touba laata mu fi jóge mu taxawal sëñ Touba ci jamono yu metti yooyu jamono yu kiris yooyu mu taxawalal Serigne Touba jumaa ju tol noonu nga xam ne ay milliards la yor mbooloo mu tol noonu lu ne di ko dikke fu ne moom it bi fi jógee bàyyi lu fi benn dërëm ay mbokkam bàyyi lu fi benn dërëm ay doomam lépp def ko daan dundale ci yoonu yàlla nga xamante ne moom itam bi mu fi daal bi mu jógee àdduna noonu ñu def maam Thierno Birahim lañ ko def kenn donnuwul ci moom alal waaye xoolal maam Thierno Birahim it ni mu def Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xamante ne sunu borom jub defoon na mu jubóog sunu borom ci lu bari lu ne dikki dikke mu taxaw jumaay sëñ Tuubaa ji ba mu àgg Cheikh Mouhamadul Fadal ay jamonoom ni adduna bi neexe lu di jóge fu ne moo ne keroog bi mu fi bàyyi ko ci néegum ñax lañ ko génnee boo xam ne boo yoree almet soo ko taalee mu tàkk ay doomam di ay gone yu tuuti yoo xam ne bi mu fi jóge ci jamono yooyu kenn kum ci bàyyel benn xam ne donn nga ko wala ñu doon nale ko sa ndey amu fi ci ay xale yu tuuti te tey nëga ni ñi ngi nii sunu boroom nga leen di dimbale بني فاتشيني صغلا شيخ محمد رفعي نيوم سرين شيخ مباكي نيوم سرين تاكو نيوم سرين سريف مباكي نيوم نيو باري سرين شيخ أمي نيوم نيو باري باري نيو خامن تنتاي بيفي شيخ محمد الفادل دي جوغي أي غنالين waaye seen waajur nekk gum nekkaloon yàlla ci lu ko maam ceerno birahim yara tax na bi fi seen waajur jógee it dañuy continuer di dund te duñ ab état dara duñ soxlaal kenn dara cheikh amin non la ko maam ceerno defoon cheikh basir waajuru cheikh mohamadul Muntaha non la ko maam ceerno birahim defoon moom itam waaye tey cheikh di fak bumi gàcc yépp bi feebar bi amee mu njëkk a millions fa ay magam jaaroon foofu rek lay jaar tey boo ko fëggoon du la mën a génneel téeméeri dërëm te ñëpp yaakaar nañ ne ay milliardaire la ñu dul jeex kon mu mel ni bokk yi maam Thierno Birahim formé bi mu doon forme njabootu Serigne Touba looloo taxoon tubaab bi waxoon ko ne ko ba mu bindee lettre mu wax ne nu day danoo échec nu danoo échec ndax li ñu tax a échec loo mooy. danoo fekk sëñ Tuubaa fam ma ne ñu fa ak moom mu daaneel ñu ñu fekk ko fa mu tële ñu xeex fa ak moom mu daaneel ñu ne nun danoo waroon a def contraire bi yóbbu woon maam Cerno Birahim te bàyyi woon fi sëñ Tuubaa ndax bu boobaa xëy na bii échec bale échec waaye gis nga xam guñ xam fekk na sëñ Tuubaa préparé na jëmm joo xamante ne ndekete bu fi sëriñ Tuubaa jógee ci la mbir yi di gën a dox cent pour cent boroom xam-xam noonu lay mel ku yàlla ko xam ne yàllaa lay wax kon mu mel ni bokk yi maam Thierno Biraye mii nga xamante ne moom la bisam di ñëw te bis bi ni ma leen ko waxee Serigne Fallou andi ko ci bis bii muy mbégte moo xamante ne Serigne tuuba mi demoon bim demee lu ko yàlla masa sant lu nekk def na ko lum ko masa tere lu ne bana ko lu ko yàlla masa sant lu ne def na ko lu ko yàlla masa tere lu ne bàyyi na ko waaye Cheikh Ibra Fati mii mu fi bàyyi woon ci senegal lu ko Serigne Touba masa sant lu ne def na ko lu ko yàlla masa sant lu ne def na ko lum ko masa tere masuñu ko caa moo tax Serigne tuuba waxoon waxam juróy jë ne ànd man day doy na sëkk ndax ku ànd man dama lay fay yonenti bi fay la yàlla fay la ànd ak Ceerno ëpp na ndax dama lay fay yonent bi fay la yàlla fay la Ceerno ci boppam fayal la boppam ndax man dama dem ci àll bi dem liggéeyali sunu boroom am ngërëmul yàlla am ngërëmub yonenteem Cerno dolli ca beneen ngërëm muy am sama ngërëm kon ñeenti ngërëm laa mu mel ni kon man dama tànn ba noppi ci xeetu yonent bi la ci gën a rafet Cerno doxe ma ginnaaw tànnaat ca la ma tànn la ci gën a rafet kon bu yow ma la sama loxo bii de sama loxo su tedd sii nga xam ne bari waa na ku am teraanga ci diine te teraanga ja man sëñ Tuubaa mii maa la ko may bari waana ku am teraanga ci adduna te teraanga ja man sëñ Tuubaa mii maa ko may bari waana àllaaxira ëllëg ku fay am teraanga te teraanga ji man sëñ Tuubaa mii maa la ko may waaye teraanga jooju séddewaat naa ko cernu lu ma am kum ci séddul doo ca am kon cër boobu doyoon na sëkk mu mel ni ñi ngi bëgg a xaabaabal lu bare bare sëñ Modou Mbaye su ko defee rek nga tijjil ñu incha allah li euh, réseau bi niñ koy waxee rek mbokk yi nga xam ne mbokki auditeurs yi euh, su ko defee ñoom ñëpp ku ci mën a dugg rek mu dugg ci seen émission bi ñu barkelu ci ci seen i kaddu ndax seeni i kaddu ni mu koy waxee toujours moo gën a rafet suñuy kaddu moo gën a jotal ñun dañ leen di ubbil rek su ko defee am luñ ci barkeeloo su ko defee kenn ku ci nekk ñoom itam mën koo barkeeloo mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo daan woote ci Skype bi rek xam nañ fi ñu daan wootee nañ jaar foofu suñ jaaree ci Skype bi rek danañ mën a jokkoo ak ñun direct ci sëñ Modou Mbaye Thiam euh, mbokk yi nga xamante ne ñoom itamit am nañ ci seen téléphone telegram ñoom itam buñ amee numéro bii rek danañ ci mën a woote te numéro bi mooy trois cent vingt neuf bi di soixante dix soixante six neuf cent quarante su ko defee ñoom itam danañ mën a woote ci telegram direct bokk ci seen émission bi nga xamante ne mooy al majlisu suura te ngeen koy ànd ak seen mbokkum taalibe mahmoudan dan moom sering basiru antañang su ko dengan rek da ngeen mëna and ak mom ci émission bi kenn ku ci nekk ci ñun ñu diglu ci seeni xalaat diglu ci seen intervention yu rafet yi nga xamantene jamono ju nekk bu ñuy def émission bi da ngeen di and ak ñun waxtaan wi di ci barkelu di ci sotti seeni xalaat su ko defee rek yeen ñepp ñi ngi leen di diglu ñi daan jaar ci skype bi jaar ci skype bi waaye ñi daan jaar ci telegram bi ñoom itam ñu jaar ci tell telegram bi telegram bi it niñ koy waxee rek ku ko amul mën nga koo télécharger yomb na moom boo fekkente ne Android nga yor boo demee Apple App Store rek soo demee foofu boo defee telegram mu jox la ko nga télécharger ko da nga daal di mën a am numéro bii ñu leen jox mi 329 70 66 940 wante su ko defee it bu fekkente ne eh, iPhone nga yor boo demee Apple App Store tamit moom itam boo ko kii bi su ko defee dis na mën a jotante ak mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk bisimilah daf mel am na mbokk. salaam wa rahmatulah. ah Cheikh Mamadan ñu ngi siyaare bu baax. waaw ah, kay kooku. maa Mor Diop. ah suñ Mor nag. suuf waaw lu baax de. ah déedéet déedéet. waaw bismillah am nañu teg déglu rek moom daa mel ni réseau bi dafay day day dem ak mel ni réseau bi da ko taxut a leer xam naa ne waaw bismillah bismillah bismillah Halo? Halo? Halo? Habis semua. Wah, habis mila. Halo. Kok ayo ngide gua, habis mila. ngi lay dégg sëñ Wow. sëñ Mor moom dafa mel ni dafa leerul waaye xam naa mën naa woote rek su woote waatee man maa ngi ko doon dégg sax waaye dafa mel ni dafa maa déggul moom su fekkente ne mën naa woote rek mën naa woote waat dugg kii kii bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah waaw sëñ Mor moom dafa mel ni xam naa ne déggante bi neexul su ko defee bu ma woote rek mën naa woote waat man maa ngi koy dégg bisimilah. bisimilah. waaw. waaw su su moo daa mel ni réseau bi leerul de. daa mel ni réseau bi leerul waaw su ko defee rek mën ngaa wootee mën ngaa woote duggaat ndax su ko defee ñu man a déggante bu baax a baax incha allah <laughs> bisimilah. waaw ah. dafa dafa dafa leerul waaw su ko defee rek mën naa woote moom duggaat incha allah ah, mu mel ni kon mbokk yi ah, am réew su fekkente ne dañoo bëgg mu dox nit ñi dañuy xool ci seeni mag waaye dañuy xool ci seeni nit ñi nga xamante ne ay nit ñu am importance lañ ndax réew mi sunu bëggee mu dox bisimilah. bisimilah waaw réew mi sunu bëggee mu dox dafay am loo xamante ne yoon woowu la ñuy jaar ngir nu man koo jàllare boo demee ci dëkki tubaab ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci seeni doom dañ leen di jàngal ci école ngir seen doom yooyu mën a dem mu mel ni tey méthode boobu sax yëmul ci état kese waaye tax ndax tey jaaduwul woon ñun yoonu murit ñu bañ a nekk ci ay par parloo bay dem bay limal sa sëriñ loo xamante ne defu ko walla nga di ko waxal yoo xamante ne yow mi koy wax wóor la ne bëgg sos wala nga bëgg ak ndaanu pour nit ñi jox li seen alal ngir wax leen lu leen neex ci seen sëriñ moo la tax di wax waaye tey bokk yi kii nga xamante ne sëriñ Tuuba moo ko waxoon ne ko cern waaral mbindeef yi mu jëf jëf ju mel nii construire ay nit yoo xamante ne tey tey ay nit yi valeur lañ ci yoonu murit ndax kooku tey wërisu ko woon a jàngal yoon wi yoonu murit ndax tey wërisuñ leen woon a jàngal maam ceernu bi day ci lu dul ak parparloo bokk yi ci lu dul ak parparloo ndax koo xamante ne lu bokk ci sëriñ tuuba yépp moom day mën ngaa jël ci jëmmam ne ko bokk ci sëñ tuuba moo xam mag nga moo xam rakk nga moo xam lu man di doon sëñ tuuba ci sa loxo la ko tegoon te teg googu tegoon suñ tubaa tegoon ko ci sa loxo dimbalee na la dimbale gu wér ci ndim ci àdduna dimbale goo xamante ne kenn ku ci nekk teg nga ci sa te mësta def lu ko yoon wi jame maam Cerno Biraay mësta def lu ko yoonu murit di jame mësta def lu ko lislaam di jame mësta def lu ko diine wala ay bokkam di ko ko jame mës ko def ndax ku mel noonu bokk yi kaalu begiinu nekk woon a jàngal thank you mooy bismillah bismillah waaw xam naa sëñ Moodu moom mi ngi ci mi ngi ci incha allah dana ko saytu ba yéen ñi bëgg a woote yëpp su ko defee nga kon mu mel ni tey ndax jëmm jooju bismillah bismillah waaw salaamaaleykum bi waaw kay sëñ bi ñu ngi sant ba ñu ngi siyaar baax waaw kay yàlla yàlla ngi siyaare kooku bismillah waaw sëñ Mor waaw ñu ngi siyaar bu baax a baax yàlla yàlla ngi siyaar te boole na ko ñun ñëpp seigne mor ñu lay dégg bu baax mën ngaa continuer rek wax ñu ngi dégg bu baax ñu ngi bu baax waaw yàlla yàlla ngu siyaare suñ mbor ñu lay dégg bu baax bu fekkente ne da ngay déglu rajo da ngay bàyyi rajo bi su ko defee déglu ma rek déglu direct ci kii bi moo gën waaw ñaar yi day raw day xaw rawante moo tax su man li ngay wax maa ngi lay dégg jëmm ju mel nonu tay wari su na jangal mën a yoonu murit wépp ndax waxna naa ne ne loolu ko serigne touba doon defloo mu construire ay nitu wëlër yu melni ni Modou mustapha yu melni serigne fallu yu melni même tay khalifa serigne touba yi fi nek yépp nga xam khalifa bu fi nek ba bang fi ab milliardaire lañ lay woyé parce que yaakaar nañ ni aduna bi mo jëpp doole wante ndekete milliardaire bobu milliardaire sunu borom la moy ko xamne ité ju ñew rek mu man ko fajj waye bu fi jógee sax do gis ne danañ fi bàyyi benn dërëm danañ fi bayyi ben dërëm li ñu am lepp dañ koy dundale ci yoonu mam ci rabbi lay non la non ko xamantene dekk bu Serigne Touba ma sa dekk bu man di doon ci këru aduna kérok ba ngeen andé ba fi ñu tollu dekk bu serigne Touba ma sa dekk mam ci rabbi lay ko gor ci loxom te bokkul woon ak nit léegi ñii nga xamante ne dañuy foqale walla ñu bëgg àdduna xoolal li ci gën a yéeme dëkk yim goral sëñ Tuuba yépp tàmbalee ko ci daarul saraab keroog bi mu ko goree ba pare pourtant bi ko sëñ Tuuba di jox maam Cheikh Anta maam Cerno Birahima nga fo woon mënoon nafa defar kër xat-xatloog maam Cheikh Anta wala 啊，不许讲了。 aw ma seen retour man dégguma du ma leen dégg moo tax sama baafal ba mu sos waaye du ma leen dégg I. alhamdulilah alhamdulilah. parce que Alfane yi yàlla am na solo lool. waaw alhamdulilah alhamdulilah. yàlla yàlla dootali dootali xam-xam te yàlla fayoon fayal ñu suñu jàmbaar yooyu. ko génn ma ne si ñuy jàngal lu bëri bëri. ndax sëriñ ma saa yaqaale ak moom ba di wax ak moom ba tudd maam Thierno wala maam Sarr Fall da ngay daal di gis ci boppam. ni muy ni ni ni muy moom. dëgg la ah. dëgg la. parce Pastef bi ak melokaan yu mel ci digganteem ak sëriñ bi dama ko waraloon. waaw sama xol sedd lool loolu nga wax nag nga xam ne dañuy yilif nag moom daanaka suñu borom loola dogal ci ñoom ndax ñoom dañuy dañuy dañuy doxee doxee tubaab bi ak it di suul jëf te dafa am solo. parce mhm, mhm. que bu ñu delloo woon mag ñi ak gestu leen. jaay nag coono duñ ko dañuy nopp la lool. Mhm. waaye loolu dafa mel ne të. waye nañ farlu wat bu baaxa baax rek baye xel ne adduna du keur du sax resu fi te kenn ko nek la sun borom dogal ci yow nga ci dimbalé ki nga tané wa hmm. xalaat ne sun borom mënoon na waaw jërëjëf waaw xalaat sun borom mënoon na la ko def deug la deug la deug la wa may baña guddal ci di liñ bi gëj nañoo déggante wala ñu ngi koy jéglu baaxa baax a baax. kanam yow toujours ñu ngi leen di nuyu baax jere jef jere jef Mbacke laajte moom itam li ñu ko sun xol sedd na lool jaara baax jërëjëf jërëjëf si maam jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf sëñ Mamour nekk fële ci si sëñ Mamour meen nekk fële ci si dikk si gis moom itam suñ ko lëru si yëpp nekkoon fële ci daara sëriñ Saliou moom itam jaara bu baax la jamono yi muy dund foofu ci bërëb boobu siis ñu ko siyaare bu baax a baax di wax ne loolu rek mooy ci am solo xam naa dañu desi di continuer ba ba wax ñuy jeex léegi am njàngkat moo xamante man damay wax ne tey former ay milliardaire am solo lool former ay millionnaire am na solo lool former borom xaalis am na solo lool waaye am solo gi muy am solo mooy nga former ko muy ay nit yoo xamante ne ay nit ñuy taxaw seen doomi nit la ñu doon xam ne wërsëg woowu suñ boroom ko ubbi ci ñoom itam ñu am xolu wërsëg woowu ubbi ci ñoom ñu mën cee seeni mbokk kon mu ne ni solidarité boobu maam Thierno Birahim doon dund fii lu toll fi la ko jamono gën a soxla mbokk yi ba tax na même suñu mbokk yi nekk ci àll bi nii feebar bi métti métti fii ci Sénégal tey coono am na mbokk yi na ñëpp yëg ne coono am na ndax moom laa wax ci tàmbali ba nit ñi fi mu toll bañ leen tëjee léegi mi ngi toll ci fukki fan ci ku xam situation Sénégal maanaam nit ñi commerce bi doxatu nit ñi mënuñoo dem jaayee ko jënd mënuñoo dem ci biir dëkk yi daaru dugg yi rek pour nga dem Touba da dem wuti ay autorisation door a mën a dem. nit ñi mënatuñoo xëy ci marché yi daanaka am daal liggéey bi doxut te fukki fan ngi nii ñu tëj leen te ba fii may wax ak bi li ñuy wax ay mille milliards ay nangam wax kese la waaye benn dërëm génn gul jëm ci nit ñi benn dërëm ci nit ñi waa léegi diiru fukki fan yi ci réew mu pauvre mu mel ni Sénégal fi lan la nit ñiy dunde suñ dëkk yi nga xamante ne dëkk daara nga xam ne dañ ci gis sëriñ daara boo xam ne lu ma téeméeri nit ci kër doon donga yi am na ci daara yoo xamante ne yéen ñi nekk ci àll bi ngeen yëg ak bañ ko yëg am na ci daara yoo xam ne tàmbali nañoo jël seeni gone di ko delloo seeni wàll parce que mënatuñ leen a dundal te nanguwuñ ñu am na ñoo xamante ne tàmbali nañoo jël seeni gone wàññi seeni gone di ko yóbbul seeni waajur te waajur yi buñ leen ko yotee it ay coono rek lay indiwaat ndax waajur yi ñoom itam mënuñu seen te tàmbali na fi doon nii kon mu mel ni ah febar bi day ñepp gëm na ñepp ñu ngi mobiliser nit ñi pour nit ñi tege ci yoon pour nit ñi jaar fa ñu war a jaar sëñ Mamour Diop ñu ngi doon dugg léegi wax na Cheikh mo Cheikh Cheikh salim mak sëñ Mamour Diop mu sëñ Saliou itam nekk fële ci Suisse dugg léegi wax na mu mel ni nit ñi suñ toll nii bokk yi wax dëgg yàlla même kilifa diine ci émission ba la wax naa ko ne même ñun ñi sax dañ daan dem ci taalibe yi rek wuti ñun def ci suñ biir kër yi bari na ci sëriñ soo xam ne tey fukki fan ñu ngi tëdd seen biir kër tubaas ku mënu faa dem liggéey ci ab dépasse te xëy na si taalibe ba nekk ci àll ba moom itam mi ngi ci jafe-jafe yoo xam ne kon ñu xam ne jafe-jafe yi nekkul loo xamante ne bokk yi fi may wax ak yéen lu yomb la jafe-jafe am na nag bokk yi duñ toog jamono wax ak yéen jafe-jafe am na ndax jafe-jafe kon boobu bu amee ndax nit ñi waruñoo wëlbatikuwaat ñii nga xamante ne noonu la sëñ Tuubaa yare woon maam Thierno Birahim ñu fexe ba jàngal ko nit ñi ngir nit ñi mën a dellusi ci solidarité boobu mooy am ay milliards te milliards yëpp nga nangu koo dundale ci yoonu yàlla fii may wax ak yéen fi toll bokk yi ku ci man dara jot ni te nit ñi tumuraanke nañ te kenn xamul fa mu jëm ndax fi mu toll yokkaat nañ ko ba un mois le 4 avril la état d'urgence bi ñu jeex kon wër ne fukki fan yii benn bu mën a génn sa kër wala nga mën a dem wuti la neen amul te ak yéen amagul dara lu jóge ci kon ñu xam ne dana metti yu mel ni maam Thierno Birahim yi nit ñi ñu ngi ciy bëgg a manqué ñu yi. bu ñu ko defee kenn ku nekk sa bopp kenn ku nekk dund ak sa bopp kon mu mel ni njàngale ni sëñ Tuubaa doon jàngale li tax ma ne ndax ñun yoonu murit warunoo bàyyi par parloo bi wax wax yoo xamante ne ay wax yu neex nit ñi rek la ngir bëgg nit ñi di daanu di la jox xaalis ndax waruñu koo génne ci suñu bopp fi ñu toll nii te jéem a seet yar bi sëñ Tuubaa defoon ci maam Cerno Birahim mu jéem ko def ci suñu bopp jéem ko def ci suñu bopp ndax xoolal coono yii ma la wax yépp maam Thierno Birahim jànkonte ko ci biir tukki bi sëñ Tuubaa tukki ak bi sëñ Tuubaa ñu gisee li coono yi di tar-tar ak li muy metti metti teewul lii ma leen di wax kenn ku mas a ci yoon wi koo xam ne dañ ne dafa tumuranke bañ koy dimbale li ko sëñ bi doon yan li muy metti metti teewul bu set mi ngi koy bind leetar sëñ Tuubaa ngi koy bind leetar di ko wax ne ko Thierno dimbaleel diw dimbaleel diw dimbaleel diw te boobu maam Thierno ngi yem coono yu mettee noonu waaye teewul sëñ bi di ko bind ay leetar di ko wax naan ko dimbaleel sëñ diw dimbaleel sëñ diw dimbaleel sëñ diw kon mu mel ni jàmbaar ju mel nii bokk yi bisam jub si yàlla dogal feebar bi xëy na kenn ku ci nekk fa nga nekk rek nga ko mën a defee waaye nag teewul waris na ko jàngal nit ñi ci ngor gii mu gore te loolu kat bi mu koy def yépp teewul la cër bi ko xam nga xamante moom la joxoon Serigne Touba cër boobu dara mosu cee manqué xoolal ni mu toppee woon Serigne Touba xoolal ni mu ko gëmee xoolal ni mu ko liggéeyal ci adduna waaye mu waree ngor gi bi fi Serigne Touba jógee mu ne lu Serigne Touba yoroon di soxna sax bu ko kenn doon nañ leen bàyyi ñu jigéen ñoo xamante ne dañuy jaamu yàlla ba keroog ñu ngi ci suñu borom waaye bu leen kenn jël xoolal boobu ngor bokk yi. wëlbatiku ne doomi sëriñ Touba ji fi nekk di sëñ Muudu Moustapha di samaw xeer di sama lépp maag way juróom mu jigéen ak way juróom mu góor mu bokk lépp muy sama doom ma jàngal ko yar ko bu kenn ñëw topp ma nañ topp sëñ Muudu Moustapha ndax moo fi ñëpp sëñ Touba tey mbokk yi ma ne référence bii tey tubaab de bu ko amoon ñëpp danañ ko xam su fekkoonte ne tubaab ba ko am ñëpp danañ ko xam africain nag bu ko amee kenn du ko xam ñun yoonu murit it buñ ko amee damay dem ba mu dafay dem ba mu jàgg day mujj nag jur ak par parloo kenn ku ci nekk di yëkkati li nga nekk kese waaye kenn du ko xam te moo ne ndaxam day sëriñ Tuubaa mi ne woon jël leen cernu ngeen def ko référence ngeen def ko royukaay parce que mooy royukaay bi nga xamante ne mësuma tàqalikoog moom ci ak ndawam ak ci ak magam lam yu faarix nii laa fii siqarihi wala fii kibrihi cernu moom mu nga xam ne mësuma tàqalikoog moom ci ndawam ak ci magam jël leen ko ngeen def ko royukaay waaye sama taalu bi boobu di cernu nga xam ne mësuma wuute ak moom ci ak ndawam ak ci magam lam yu xaalif nii laa fii siqarihi wala fii kibrihi jël leen ko ngeen def borom baay bokk ci mel ni bu fekkoonte ne déggoon na message su Sëñ Tuubaa boobu tey jamono yii may wax ak yéen borom daaru ñun murit yëpp borom daaru mooy doon suñ référence ni ko Sëñ Muntaxa waxee ne su ma xamul woon dara ci Sëñ Tuubaa sax li ma xam ci maam Cerno képp doy na ma ab yóbbal boo xam ne mën naa koo yóbbuloo ba àllaaxira te du jeex mukk kon mu mel ni bokk yi su fekkonte ne xamoon na njàngaleem sëñ Tuuba te xam li nu sëñ Tuuba bëgg a wax dëgg-dëgg dafay mel ni nag mbir mi bokk yi yomb na lool te ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun man ngaa xam sa bopp xam sa bopp boo xamante ne li ngay def dana yomb te xam sa bopp gi mooy doon taalibeb sëñ Tuuba bu dëgg doon taalibeb sëñ Tuuba bu doylu doon taalibe sëñ Tuubaa bu gëm yàlla gëm yàlla bu wér doon taalibe sëñ Tuubaa boo xam ne doo wàcc mukk sare ak xaqiqa mu tànk yi maam Thierno Birahim jëloon ba agsi fii mu agsi tey su fekkoon ne ñun ñëpp jëloon nañ ñu teg ñu foofu tey kenn du ci ñu waaj wante ñu bari xamuñu ko heureusement ñu bari xamuñu ndax mooy adduna pëccëxoo bi bi ëpp na léegi ku nekk rek naan mana ku ne naan mana ku ne rek di wax ne mana ku ne di wax ne mana nag dana indi ak yàq te fekk na la ngay wax bëgg lu meex wala bëgg lu kii rek mooy dem waaye kii maam Thierno Birahim taxawoon fii mu féete woon Serigne Touba amul nit ku fa mas a nit ci adduna ndax wax naa ko ci ab waxtaan ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fiy nekk dafa am pàcc yoo xam ne dafa xàjjali ko woon dafa am fukk Seydina Aboubacar féete woon koo xam ne moom rek a fa ma a taxaw am fukk Seydina Omar féete koo xam ne moom rek a fa ma a taxaw am fukk Seydina Ousmane féete woon am fukk Seydina Aliou féete woon Seydina Aboubacar gëm sëñ gëm yonent bi gëm bu xam ne dafay wax ne lu jóge rek lu yonent di wax dëgg la seetul sax nu mu ko waxee ak fu ko waxee ak lu ko mën di waxee ba bi ci rañaan mi gis nga bi ñu koy wax ne ko sa mbokk mi sa sëriñ bi nee na kat dem na fële ba ñëw te foofu nga dem ay ay ay weer di ko ko sabotel wax bañ daanee la liñ leen wax su fekkee moo ko wax rek dëgg la wéet yi yonent bi ci jamono yu nekk yoo xamante ne kenn mënu fa nekk bi muy nekk ci xunti yi mu bokk ko di fa fanaan ak moom jël léppam jox ko doy loo ko foofu la ko maam Cerno féete woon sëñ Tuuba doon am Abu Bakar xamuñ keneen ku dul sëñ Tuuba jël léppam jox ko la sëñ Tuuba wax rek noonu la du werante du wéeroo du biij biijoo du xëccoo du ne nee la du ne ndax bu doon nee lu sëñ Tuuba wax rek noonu la kon kenn ku ci nekk xam na ne doonoon na am Seydina Abubakar waaye doonoon na am Seydina Aliyum keroog bi nga xamante ne na Aliou bi gone bi tuuti bu njëkkoon a nekk ci lislaam loolu te bokk ak yonent bi sallallahu maam Thierno mooy gone gi gënoon a tuuti te bokkoon sëñ Tuubaa yëpp keroog bi muy dem ne ko tëddal ci dal bi bu yéefari ñëwee buñ dee jéggal jéggal la buñ dee rey la Seydina Aliou di gone ci lal bi fanaan ca ba bët set yéefar yi yonente bi génn xëpp leen dara ñu nelaw Seydina Aliou moo fa fanaan waaye bi sëñ Tuubaa di dem maam Thierno Birahim fi nekkoon yoroon njaboot bu ñuy rey rey ko bu ñuy sonal sonal ko bu ñuy tëru tëru ko kenn wétt li ko wuti woon ku ba tey place Seydina Omar taxale dëgg ak bi fi yonente bi nekk kenn du du dugg ciy gëm gu wér topp yonente bi wala nga nekk yéefar a ak moom mu rey la wala nga rey ko kenn du tàppale borom daru noonu la fi nekke woon ku nekk ci ëttub sëñ Tuubaa nar koo tilimal sax ñu woo la la wala ñu yar la wala ñu génne la saafara kon moo doon am Seydina Omar doon jàmbaar joo xamante ne kenn du yeb sëñ kenn du kenn ku ci mu réglé la yamale la fa nga la ba la yamale waaye Seydina Ousmane doon ministre de finance lu yonent bi bëgg mu saafara ko ci alalam man Thierno Birahim nekkoon dem sëñ Touba di dundal njaboot sëñ Touba di dundal waa kër sëñ Touba di dundal taalibe yëpp di dundal aduna bi yëpp lu sëñ Touba soxla lu sëñ Touba soxla rek Thierno Fati fati lu sëriñ Touba soxla Thierno Fati fati sëñ Touba mës soxla dara mukk muy farante man Thierno faj ko kon mu mel ni ñeenti saxaaba yooyu yëpp tey boo leen boole woon maam Thierno Birahim jël na daraja ñeenti sahaba yooyu yëpp boole leen ndax kenn ku ci nekk lenn la yoroon maam Thierno boole ñeent jikko yëpp yor ko ba pare yor jeneen saxaaba yeneen yi ci des ñu doon xeex Badar ñu doon xeex faneen ñooñu ñëpp maam Thierno Birahim boole seen i cër kon yoonu murit war na koo jàngale bokk yi ndax jàngale ko njariñam la jàngale ko njariñam la ndax dana tax gone yi rey ci dafa mel ni li ñu doxoon ci waxtu xam naa ne fii rek lañ koy mën a yabal léegi yéen dañ ci doon embarquer rek ci nisu saxabaat bii di ñëw ñu di ko def alxames kon sering bi joxe na ndigal ci ne fu way man di nek rek man nga fa ñaan def ko sey kaamin te yel te yol yene ko man Cerno Birahim wala waye bigal sey njaboot kon seen talibé taalibe Mahamadou bakki lii la doon lo yeen ci nisfu saxbaan muy magal bo xamantene dañ koy magalal mam di jàmbaari serigne Touba di fi kon yeen ñëpp rek ku ko deg bi communication la bo xamne man manis na ko jot waye nak melokan bu melon solidarité xolam bu ubbiku woon moom ñu ngi ciy soññi ñëpp kenn ku ci nekk ñu xam ne jamono laaj na ko nañ ko bàyyi xel kon ñoo ngi jégalu mbokk yi bëggoon a dugg yëpp te mënuñoo dugg xam nga mbir machine moom léeg-léeg dafay neex léeg-léeg bu ñu ngi siyaare yëpp di delloowaat siyaare bu baax sëriñ Mamoor Jóob moom mu nekk ca fële ca Suisse di suñu xarit di suñu collègue dañoo juumoon léegi ne suñu Mamoor Mbeeg waaye suñu Mamoor Jóob la nekk ci daara yi nekkoon ci daara yi suñu soñ di mbokk di waa kooku yëpp Eh, di ko nuyu di ko sant bu baax di sant sëñ alaaji sekk mu fa nekk moom itam ak mbokk yi fa nekk yëpp di leen wax ne leen seen jotaay bii nga xamante moom ngeen doon am ak seen mbokkum taalube mahmoudan moom sëriñ basiru mu di ci am ak sëriñ moodu mbay caam ci machine bi ba ñëpp mën ko dégg di ko gërëm bu baax ci taxawaay pratique di gërëm ñëpp di ci siyaar ñëpp di ci siyaar ci ni su saabaan bi suñu xarit suñu mbokk bi suñu kollëre sëriñ mouhamadou moustapha mbay saam nekk fële ci touba moom itam ñu ngi koy bu baax baax di siyaare mbokk

yàlla nangu siyaare ah den ci gi ñu jublu nii màggalu gi ah, alhamdulillah ah, nañ nañ ni ko waxe ñaan yi ci ñaan yépp nangu te ci ak mbokam amin amin amin amin alhamdulillah ñi ngi leen siyaare baax baax di ñaanal baax Serigne Touba Serigne Muntaxa mu yàgg fi lool momitam ak kilifa diina yépp ya, rek amiin amiin amiin waaw ah, di si rafet bu baax a baax waxtaan nag xam na dafa mel ne ci bu maam réseau bi moo moo xawoon na may jafe-jafe daa mel ne ci kanam léegi nii waaye ñëwaat na léegi baaxaat na nii. waaw réseau bi moo xaw moo xaw a waar. waaw waaw ñu lay seer baax a baax di wax ne waxtaan bi jeg nañ ko bu baax a baax li nga wax moom daanaka man damay wax ne sax maanaam maanaam waxuma la jàngale maam Thierno rek waaye sëñ Abbas dong buñ ko jàngale woon Sénégal gépp mën nañ cee defaroo. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. waaw waaw waaw waaw waaw ndaxte nan ndax ndax sax ni nga ko waxee noonu maanaam ñoom dañoo bokkoon ca milliardaires yu jëkkee waaye waaye mosuñu ko wanewu li ñu jublu woon moom mooy dimbali askan dimbali askan wi rek. Mm-hmm, mm-hmm. waaw ñoom ñoom ñëpp àndoon ak Serigne Touba ñu ko waxee maam Thierno sëñ Gaawaan sëñ mën ba ñoom ñëpp kenn ku nekk li nga yoroon du jeex waaye liñ ci daan def mooy dimbale dimbale waa Sénégal rek lañ lañ ci doon def. dëgg la dëgg la dëgg la. Ah, kon nag yaakaar naa ne fi toll nii bu fekkoon ne tey bëggoon nañ suñu réew gaaw a gaaw a soqaliku yaakaar naa ne jàngale jàngale jàngale mag ñooñu buñ ko buñ ko defar rek kon kon nag ni fii yëpp weesu nañ ko. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw waaye nag damay jàpp ne ba léegi rek bari na ci yoo xam ni daal day mel ne ci ñun la ba léegi rek ndax ñun daal dafa mel ne ba léegi dañoo bàyyi suñu bopp ñi nga xam ni ñooy jiite ci wàllu àdduna ndax daal loolu daal lay nuru ba léegi. Mm-hmm. waaw ndax daal wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla daal jot na sëkk sëkk man dama koy wax ne kenn ku ne yaakaar naa ne am nga sañ sañu ne man euh, sa sama doom lii laa lii laa lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg mu jàng ko lii bëgg mu def ko mm-hmm. Mm-hmm. waaw ndaxte wax dëgg yàlla ñun liñ bëgg mooy loolu ñun ñëpp ñu fekkee ñëpp ñoo bokk lu bëgg lu baax luñ bëgg te gis nañ ne maa ngi tracé tracé yi ñu ñi jaaroon ñëpp réussir nañ te mandu nañ ci ci ci am nañ yaakar ci àjjana ndax lu baax dong lañ doon def lol ko maam lol mooy yoonu aduna deug la deug la deug la waaw danañ defaru seen aduna bax seen alakhira bax ñu mandu deug la deug la waaw waaw legi nak li tax ba legi ba legi léegi loolu ñu ko def loolu loolu maam loolu moy problème bi deug la deug la deug la waaw kon nak dama japp ne jot suñu bop ñun ñepp ñi nga xam ñoo bokk pas bok ngam ngam ngëm ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo Euh, tënku ci genn kàddu koo xam ñuy waxal di ñu defal di ñu dindil. macha allah. waaw waaw ca waaw ndax suñu kilifa gii sëñ ak lu baax rek la yéen àdduna bépp waxuma la sax Sénégal àdduna waaw hmm. waaye nag ba léegi day am ay benn benn yu mel ne man yoo xam ne day jaar ca àll ba di di wax ci turu yoon wi. te loolu te hmm. loolu man damay wax ne loolu waroon ku ko doon def waroon waroon na koo bàyyi. waaw ndax bu fekkee ne ki nga xam ne moo ñu jiite moo ñu gën a xam moo ñu ëpp yërmande te li xew ci àdduna bépp xam na ko kooku rek moo war di wax wala ki mu wax loo. dëgg la dëgg la. waaw ci yoon wi. te te te te li muy bu buñ ci tënkoo suñu aajo dana faju àdduna ak àllaaxira. dëgg la nag wax dëgg yàlla jaadu na doy na sëkk sëkk noonu nga ko waxee ñu jàngalee maam Thierno ak njàmbaaram ak jëfe ndigalam ndax jëfe ndigalam ak njàmbaaram moo taxoon lim am lépp mu am ko. deug la ndaxte sénégal yaat na waaye kenn ku ci kenn ku ci toj ñeen fukki kilomètre moom gisaguñ ko fi te booba wax nga ne booba amagul te booba wax nga ne amagul ñeen fukki at mm-hmm. waaw kon nag kon nag kooku kooku ak njàmbaar foofu la mën a yem jëfe ndigal foofu la mën a yem amu fit ak doogu yaakaar naa ci moom ci moom la mën a yem te wax dëgg yàlla waa këram ñëpp bëj sëñ abbas bi noonu lañ mel kon nak señ bi ñoo sant baax siyaar dafa melni ne mo neexut xamna ñu bayyi mbokk talibé rek bu fekkee ne am ñeen ñu wara a siyaare la dëgg dafa neexut tay dëgg la dëgg la ah, waaw do ngi siyaar señ Mamour Diop mom doon duggu léegi mom tam ak ak ak mbokk yépp rek dëgg la ma sha allah ma sha allah jëf Mbacke jërëjëf jëf ngi siyaare bu baax ah, ma sha allah ah, rafet na lool di ko sant baax na mom moy mooy dernier auditeur bi sax ndax ñamoon ci waxtu daanaka ñamoon ci jeex la tax sax jeex la tax kon di leen jox di di daje rek yéen ñëpp alxames ak jàmm ci màggalu Cheikh Ibrahima Fati ci noonu ko sëñ Abbas digalee rek ñëpp defee defee nag mm, tam ñoo ngi leen di jox digéen ñu ko daan defee fii rek yéen mbokk taal bi di leen bàyyi xel ah, di wax ne ñu ngi tëjee ci ñaan bi nga xamante ne moom la ñuy tëjee rek jamono yi feebar bi amee ba léegi ku man rek mu di ko jàng suba ngoon ku ko mënul tamit ah, mu di ci barkeelu heure bu émission bi jotee rek incha allah soo yàlla bismillahi rahmani rahim allahuma inna sunubi asumat wa jallat wa anta sayyidi وإلهي أحسن وأجل اللهم أحيني لا رداك لأرديك حتى ترضى بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين ويا كبير يا متعالي ويا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وأدم علينا نهم واصرف عنا نقم ورجس والعذاب والألم إنك أنت الأعز الأكرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلبك